maîtriser facteur transport euh, mooy quatre-vingt-quinze ba léegi amul kenn ko mën a toog diiraam bu yàgg noonu benn am na lu lëndëm si biir luy luus lu mel ni dictature ñàkk démocratie parce que am na benn góor gu nekk si garage bi ku ñuy wax pas oustaz mm. bu bëggee posé candidature daf ne ko da ngay posé mën na ko wax mën ko baax na dem su ma gañee élection dama lay dàq mm. paa bi mujjul dem élection dafa toogaat ah je ne sais pas en tout cas man la xaw ma dafa defee élection moom mooy gagné. moom laa lay wax depuis quatre-vingt-quinze ba loolu mënul nekk parce que ñun jeunesse bi léegi dañoo commencé di màgg bu fekkente ne ñeneen def ay élection mhm. mhm. parce que ñi ëpp moom la ñu àndal. mais lu tax ngeen war mais élection ah, ah, ah, léegi nag léegi nag léegi léegi léegi yow. Euh, kele xam nga xam nga la ma war a élection yi ñàkk démocratie xam nga la mooy ñàkk démocratie transport mm. mooy da ngay wax ni ki bokk ci garage bi comme ñun ñu toog nii ñun ñooy voté suñu biir rek si gàttal comme ñooy bokk si gàttal ñooy voté yaa may dégg kii neexuma du dem kii moom a neex mooy dem te pourtant loolu warul demee noonu mooy lan mooy ñu am transport bu nga xasee ni milieu oto ki xamante ne am poids laissé na mën a voté bokk si yi am poids loolu war na a dem ki am transport war na mën mooy waral suba jeune bi nga xamante ni am na carte d'identité am toog di lang ne man kat suba war naa mën a tànn sama njiit dem uti permis mais buñ ne transport rek la war a yam parce que buñ ne buñ ne transport ku am permis nga bokk waaye élection yooyu ça veut que ñoom ba léegi góor ku moom moo ëpp bu fekkee ci garage boobu noonu chaque fois boo leen demee mu gagné leen. Mhm. c'est parce que. ñi ëpp moom la parce que amul parce que amul candidature mooy li ma la wax amul. déedéet mooy amul. xoolal waaw mais buñ ko nangoo. gis nga gis nga mooy li ma la gis nga mooy li ma la gis nga sunu yi sunu papa yi dañ ko fay tegoon. Mm-hmm. dañ ko fay tegoon si ngor. Mm-hmm. sunu papa yi dem ba jëm mag man mii di wax yow mosuma ko gis bët ak bët. kenn si góor xuma bët ak bët face à face mosul mosuma ko gis si télé rek laa ko gis wala si ay communication. kon moom du ñëw si garage bi jamais. merci avant tout koo xamante ni 95 ba léegi lañ la fal léegi kon ñi la faloon seen i doom xamoo leen première erreur seen doom xamoo leen ñun association bi ñu jël forme génn génn nañ si ay jeunes yi nga xamante ni ñoom dañ doon jëfandikoo Dilian ñii dañ doon jëfandikoo Cinébar lu war ma ay 300 et quelques personne génn nañ leen si si si loolu. yaa may dégg maa ko jiite seen président. ok yaa may dégg bu léegi nag si biir loolu. ñu xam ni lii kat bu ñu leen génnee si lii ba tey amaguñ leen jox lu ñu mën a jàpp kon il faut ñu dem élection pour ñu mën a ñu mën a defaraat jëmmalaat mën a am doole mën a jëmmalaat loolu moo war a ñëw taxaw fi pour di laaj suñuy droit pour moom mu nangu suñu candidature mun ñu jaay carte de membre ñu mën a bokk si élection yi parce que du ñu nangoo jaay non xamul xamul waral loolu parce que su xamee ne yow da ngay bokk élection du la jaay mooy li ma la wax